alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala di dénk sunu bopp di leen dénk ragal boroom bi ak topp ko jàpp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak diini islaam loolu jàllee xam ngeen ne diini lislaam diine la joo xam ne fépp fu nit ki toll ak lépp lu muy def lu nekk rek war na cee delsi ngir niitu ba xam lan la ko sant ca situation boobee mu toll noo ngi nekk ci jamono joo xam ne jamonoy examen la ci sunu doom yi ak sunu rakk yi ak sunu jarbaat yi li ñu doon jëmbat biñ tàmbalee jàng ba léegi waxtu feeñal ko jot na xam ngeen ne examen benn jumtuwaay la boo xam ne daara yu ñuy jànge muy école yi ak école yu mën a doon nag dañ koy jëfandikoo ngir xam nit ki liñ ko doon jàngal ndax xam na koom déet ndax jàngalekat bi lim doon jàngale jàngale na koom déet ndax yar biñ doon yar ndaw li yar boobu dikk na ci moomam dugg na koom déet ndax xam-xam bi doon na luy des ci moom ba bu ëllëgee mu mën koo jot li wala déet yooyu yépp la ñuy boole di ko nattu ngir suñ ca jógee nit koo kii nga xam ne mooy ndongali wala mooy élève bi wala étudiant bi ñi war a mën a sukkandiku ci loolu ngir ne kii day xam ne lii kon nag ku ko jox responsabilité sàngam dana ko mën a doxal kon doonut lu woyof ci dundu jullit bi lu rëy la loo xam ne ay responsabilité daf cay tegu loolu moo tax lislaamit it doonut mbir moo xam ne mu moyefal la kon ngir ñu mën a am examen bu wér boo xam ne dafay joxe yooyu ñi ci bëgg ñu mën ko cee am faw képp koo xam ne laal nga ca li doon sa responsabilité da nga ci taxaw ba mu mat sëkk buñ seetee nag ñi nga xam ne ñoo am responsabilité ci loolu ah mooy kër gi ndongali dëkk ak jàngalekat bi wala administratif bi nga xam ne moo ne ci daara ji muy école bi ak nag ki nga xam ne mooy ndeyu mbill gi muy élève bi ci boppam wala étudiant bi responsabilité kër gi bokk na ci mooy ndaw li nekk ci kër gi di jàng nañ ko jéem a yar ci mu yëg ne li muy def lu sell la lu baax la ngir mu mën koo def ngir yàlla ndax yéene bu baaxul rek dara du baax ndaw li nga xam ne dafay jàng buñ ko yëgal gëmloo ko ne ko li ngay jàng dafa baaxut axu ginnaaw lu koy jariñ li ci àddunaam la walla lu koy jariñ ci àllaaxiraam lu baax la kon jàng xam-xam làkk wu mën a doon xam-xam la tudd moo xam da nga ko jàng ci làkku arab walla nga jàng ko ci làkku afrig wala nga jàng ko ci làkku tubaab wu ci mën a doon ginnaaw xam-xam la xam-xam la tudd su ko defee ñi fexe ba jëmbat ci moom mu yëg ne lii muy def du lu bon du làkk woo xam ne ku koy jàng da war a doon wéyu walla làkk woo xam ne ku koy jàng lii nga war a sol walla woo xam ne ku koy jàng nii nga war a doxee déedéet ginnaaw xam-xam la rek xam-xam la tudd waaye nañ fexe ba mu rafetal yéeneem ba mu gëm ne moom lii muy jàng mu doon ab xam-xam su fekkee xam-xamu diine la lu muy jàng ngir jëfe ko la lu muy jàng ngir laay ci biir mbokki jullitam la su fekkee xam-xam bu jëm ci wàllu àdduna ak développement luy baaxal aw askan mu gëm ne lii daf koy jàng fas ci yéene li boppam ak njabootam fas ci yéene jëmale am réewam kanam su ko defee pas-pas boobu ak yéene jooju ci lay départ yi yëg ni ci lu baax lay nekk ay cëram mën a tàlli mu sawar ndax kat kii dox te xamut fu jëm xamut itam lu mu bëgg ab doxam du mën a gaaw waaye su fekkee li mu bëgg xam na ko leer na ci moom nañ ñi mu yëg ne moom kat kenn nit dong la ku tuuti la waaye nag buñ ko xeeb ndax lii muy def mën naa dem ba amal njariñ askan wi kon loolu ab depart bu am solo ci moom la ñaareel bi mooy nañ ko dimbali yombalal ko yenn mbir yi loolu waa kër gi la war fexe ba ki jàng ñi wutal ko waxtu woo xam ne bu jotee waay waay buñ ko yàqal am njàngam coow lu bari li ci kër gi werante yeeg xuloo yeeg rajo yi ñuy ubbi ba mu sës musique beeg télévision yeeg yooyu yëpp yu yàqal kuy jàng la nañ ko dimbali ba yooyu ñu wàññil ko ko mu mën a am jaww yoo xam ne dana fa mën a toog jàng am jàngam ci ak dal ba su waxtu jëkkante jotee bu dajeeg ay moroomam duñ ko raw ñu bare bari ci ñuy jàng ay jàmbaar lañ lool ñu mën a góor lañ lool waaye jamono yu jëkkante jotee ñu des gannaaw wala duñ mën a jàll fekk la ko waral kër gëm dëkk ñoo ko def ñoo ko ko teg ñetteel ba war nañoo soññ ñiy jàng saa buñ tàmbalee jàng ñu yëg ne ab xam-xam ku koy jàng doo def loo jàngi rek boo dikkee lem teg nekk ci yeneen bañ ne examen yaa ngi jot nga door tàmbali di xool naan lu jëkkal fu mu tàmbali woon ak lu ca teguwaat saa boo ñëwee bu nekk li nga jàng mu doon lu yees da nga koo war a jàng ba xam ko su lu yees ñëwatee nga jàngati ko boole koog la weesu woon ba jamono yoo xam ne nee nañ examen agsi na coono duuti la sonal ñeenteel ba war nañ leen jubbanti ñoom ndaw ñi ngir ñu xër lool góorgóorlu lool ci jàng nan la ñuy organiser waxtu ndaxte ndaw dafay doon aw yaram woo xam ne wu sawar la bu bari ay activité la faaw ñu organiser ko ngir waxtoom woowu yi lu ne xaj ci njàng mi mooy li ëpp solo ci li muy def ci jamono yi mu toll waaye yaram wi am na yeneen yu soxla léeg-léeg mu soxlaa dem di sport léeg-léeg mu soxlaa noppalu léeg-léeg mu soxlaa gis ay mbokkam di waxtaan ak ñoom su ko defee yooyu ñu jéem ko jàngal nan la koy organiser ba lu jot lu ne mu xam ne nangam jot na su loolu weesoo mu xam ne loolu weesu na waaye jamono yu jëlee dara di ko def ci weneen waxtu woo xam ne waxtu leneen la loola day daal di tooñ loola loola waxtoom day jot du ko mën a xam wala du ca tekki dara wala mu yàq am njàngam sax juróomeel bi nañ leen jàngal ne ñu teel a xam ni nit ki jàng bu wàkkeeloo ci yàlla ba noppi la ca sës mooy efooru boppam góor góor góorgóorlu ci boppam wattandiku lii dal ñu bari jàngoo góorgóorluwoo ba waxtu wi jot sa yaay fabu siram teg ci boppam fu nekk mu jëm fa roq bu ne mu dugg fa di seet ay gisaanekat ak ñuy joxe ay nen yuñ bind ak ay bant ak ay galen ak yu kenn xamul ñi naan la loolu boo ko takkee amaana man ngaa at me ma ne loolu ci liy tardeel askanu Afrique wi ci la bokk nit ki na wakkirlu ci yàlla na def effort na ñaan itam nag boroomam tabaraka wa ndax mu defal ko tawfiq loolu danañ ci ñëw ci kanam yooyu responsabilité su fekkee néeg bi def na ko waa kër gi àndandoo nañ fi ndaw li dëkk kenn ku nekk def li ko war foofu su boobaa seen jaan wàcc na mu des nag jàngalekat ya ak ña nga xam ne ñoo saytu daara ja jaadu na <clears throat> ci jàngalekat bi te moom mooy ki ndaw li gën a taqool ci lu jëm ci wàllu xam-xam bi jaadu na ci moom mu dalal xelam yëgal ko ne ko kat examen doonut loo xam ne mbir la moo xam ne ab yar bu ñuy jëfandikoo ngir mbugale leen ko la waaye ñu yëg ne béréb la boo xam ne dañ fay jaar rek di jàll doonut lu woye lu diis doonut loo xam ne it nag war nañ koo sàggane dafa laaj rek nga góor góorlu soo góorgóorloo jàll loolu dafa jaadu ñi gëmloo leen ko su ko defee ñaareel ba fexe ba situation bi nga xam ne fi la ñuy defee seenu jëkkante muy examen bi itam ñu mën a fexe bam dëppoo ak li jaadu yiñ aajowoo yépp man faa am ba ndaw li soxla ñu mën ko koo jox mën koo teel tëral yi itam jadwal muy barem bi nga xam ne ci li ñuy sukkandiku ngir ne tey lii la ñuy def bu ëllëgee lii la ñuy def bu ëllëgee lii la ñuy def ndongali teel koo xam ndax mu mën a teg programme ci kaw loolu ñeenteel bi jaadu na ci ñooñu ñu wattandiku lépp loo xam ne dafa aju ci xeeñal feeñal sa kërëb examen moo xam feeñal ay laaj la wala déey nit la wala wax ko kenn koo xam ne mën na ko jottali keneen ba mu agsi ci ndongo yi loolu jàngalekat bi war na ko wattu waaye képp koo xam ne xam na dara ci secret yi daara ji war naa wattandiku lu mel noonu ñeenteel ba jàngalekat bi ak ñim àndal nañ wattandiku tooñaange tooñ kat baaxul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tooñ ay lëndëm la ëllëg ci bàmmeel tooñ fii ci àdduna ak lëndëm lay indi ci bàmmeel yàlla ñu ci yàlla musal bokk na ci tooñ nit ki nga di ko laaj loo ko jàngalut loolu tooñ la waaye bokk na ci tooñ itam nit ki nga laaj ko mu tontu la li nga ko laaj waaye am na leneen loo ko meree tax nga bañ koo jox ak xam borom bi tabaraka wa taala nee na wala tabxasu wala tabxasu nnaasa asyaahum nit ki bu leen fekk lu ñu yeyoo ngeen di ko wàññi kenn ku ne lu mu yeyoo jox ko ko ba mat sëkk su loolu jàllee nag ndaw li ñëw nga xam ne mooy ndeyu mbill gi kooku responsabilité moo gën a rëy yépp ku war a góorgóorlu la la jëkk mooy na doon koo xam ne ku lu ci boroomam tabaraka wa taala la nay fàttaliku fu mu toll lu yonente bi sallallahu alayhi wax ne jullit bi dëgër jullit bi dëgër dëgëraay gi waxuñu rek day feeñ ci yaramam wala ci kàttanuk yaram am doole waaye dëgër même ci xam-xam ku rawanteeg moom ci xam-xam doo ko raw wala boo ko rawee it koy rawee danga xam ne kii jàmbaar la kon jullit bi dëgër nee na moo gën moo gënal itam yàlla ci jullit boo xam ne dafa daif mooy dafa néew doole dafa ñàkk solo nee na nag ginnaaw jullit la rekk ñoom ñëpp kenn ku ne aw yiw a ngi ci yow waaye nag kii moo gën mu teg ca ne xéral góor góorlul ci lépp loo xam ne dana la jariñ dimbanikool it sa boroom waaye bul lot bul nangoo dellu gannaaw mukk ñaareel ba ndongo li wéerul ci sa boroom te bari loo koy ñaan ci gépp ñaan goo xam ne ñaan gu baax la lu mel ni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ñaan googu Muusa alayhi salaam moom la ko borom bi tabaraka wa taala digaloon mu ñaan ko moo yàlla yàlla na nga ubbi sama dënn yàlla yàlla na nga yombal samay mbir bu doon ñaan goo xam ne ñaan gu màgg la fàttalikul jamono yoo xam ne yaa ngi génn kër gi ñaan gi lislaam jàngale ne booy génn na ko wax mu di bismillah mooy maa ngi génn ci turu yàlla tawakkaltu ala la maa ngi wakkiirlu ci yàlla mooy jox ko sama mbir yépp wala xawla wala quwata illa billah kenn amul kàttan kudul yàlla teg ca ne allahumma inni audu bika an adilla aw udal yàlla maa ngi muslu ci yow génn réer walla ñu réeral ma aw azilla aw uzal walla ma tarxiis wala keneen tarxiisal ma aw azlima aw uzlam wala ma tooñ walla ñu tooñ ma aw ajhala aw yujhala alayya wala ma def njaaxum goo xam ne réer a koy waral wala keneen def njaaxum gu réer waral ci sama kaw ñaan googu kuy génn ku nekk da koo war a wax sa kër rawatina nag koo xam ne da ngaa génn jëm ci njëkkante boo xam ne mbooloo moo xam ne ay nangami téeméeri junnee nit dafay daje di ko njëkkante nga doon kenn ci seen biir doon ab jullit war ngaa am loo làmboo yóbbaale ko loo xam ne borom bi dana la defal tawfiq ñeenteel ba looy def lu ne ginnaaw li ngay def lu baax la booy tàmbali tàmbaleel ci bismillah fàttaliku sa borom foofu yi nga toog ca chaise ba yow ndaw li di bëgg a bind tont fàttalikul ne tàmbalee tuuru borom bi tabaraka wa barke lay indi dimbandikoo yàlla tawfiq lay indi kon bul fàtte mukk bismillah te fekk yaa ngi nekk ci situation boobu juróomeel bi bul fàtte itam sàkku nag ngërëmul sa ñaari waajur ndax kat ñoom suñ la ñaanalee borom bi tabaraka wa mën naa nangu seen ñaan foo toll fu ne ci biir liggéey bi bul tiit bul jàq na ngay tudd yàlla di ko fàttaliku saa bu mbir tëjoo ci yow nga xalaat ne lii de nar na maa teg aw njombe wala naruma koo xam nanga ñaan sa borom mu yombalal la ko cheikhul islam ibnu taymiya muy borom xam-xam bu mag boo xam ne ñëpp dëppoo ci xam-xamam daana def su masala ñëwee boo xam ne bu jafee xam la mu dugg ci téere yi seet seet ma xaw koo jaaxal day toog julli ñaari rakka xëy na ku nekk ci saalu examen moom mënta julli ñaari rakka waaye mu ñaan dafa daan wax ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa jàngal ibrahim alayhi salaam jàngal ma yow mi nga xam ne yaa may ak dégg suleymaan alayhi may ma ak dégg ñaari kàddu yooyu daanaka faral di ñaan ànd ak nekk ci biir examen yi ni muy metteeg tiitaange jëm àndal ak bu nit ñi bëgg a dugg bokk na ci ay njariñam mooy fàttalikul examen bi lay xaar ëllëg ci àllaaxira laaj yi nga xam ne nar nañ la koo laaj fekk nga nekk ci bàmmeel te ay pexe amut foofa amul njuuj njaaj fekk loolu itam ndekki benn examen bu mag la boo xam ne bii bind la ci boo xam ne njàqare li ngay yëg dana la wan ne leneen njàqare nga fële loo xam ne borom bi tabaraka wa taala nee na fa man zuxsiha an innaar wa udxila aljannata faqad faas képp koo xam ne soril nañ ko sawara dugal ko àjjana nee na bu keroogee kooka moo at me moo teg ca nag wamal xayaatu dunia illa mataaul xuróor amma lii ci àdduna nee na lépp moom daanaka lu woyof la lu woyof la amul solo waaye mbir ma nag foofu mooy examen bu mag ba loolu na ko bàyyi xel juróom-ñetteel bi mooy góor-góorlul fexe ba sa waxtu kon nga teg ko ci anam goo xam ne gu baax la fexe ba séddale sa waxtu ci diggante jàng ci diggante noppalu soo ko aajowoo te soo demee bay tontu say laaj na nga tàmbalee ci laaj yi ëpp importance wala mu ëpp ay daraja loolu it dalay joxaat beneen bind ndax kat laaj yi ñu lay laaj yëpp tolloowuñu ay point nga gis laaj boo xam ne point bi ci tegu amaana cinq la bii deux su ko defee yow mi xool xam ne bii moo ëpp ay point nga tàmbalee ca kooku joxaat na jullit bi beneen bind ci nekke jaamu yàlla yi da cee am yu ëpp ay yool moom itam mu gën a xër ci jaamu yàllaam ah jariñu ci examen boobu xër ci jaamu am xool ya ëpp ay yool mu di ko mu di ko gën a fonk ay léeg-léeg nit ki fonk jaamu yàlla goo xam ne xëy na yool ba ca nekk boo ko méngalee geneen jaamu yàlla ga ca des su ëpp yool waaye mu gën a nangoo sonn ci gii ba noppi bu gee dikkee mu xaw ko sàggane léegi léeg muy feeñ ba ci farata yi nit ñi def sax ak sunna gis sunna soo xam nit ñi dañ koo fonk ba duñ ko sàggane duñ ko euh, bàyyi farata ñëw nga xool nangay ngay nit ñi ci sunna doo leen gisee noonu ci farata yi loolu ak ñàkk dégg la wattandikul say moroom yi nga xam ne ñooy ànd ak yow di dugg ak a génn ngay def tiitaange ci ñoom di leen tiital ci seeni xol di leen wan ne day mel ne waruñoo mën a admet am ah, kay fexeel ba dugal kàddu yu neex ci seen làmmiñ ci saw làmmiñ dugal ko ci seen xol dalal seen xel ndax loolu dana la jariñ dana leen jariñ ñoom itam fexeel ba booy dem bul fàtte lenn ci jumtuwaay yi nga xam ne ndongo li njëkkante ji dana ko aajo aajowoo moo xam ay big la moo xam yeneen yoo xam ne wóor na leen boo toogee ci jotaay boobu danga ko aajowoo ndax kat soo ko fa yóbbaale wut nit ñi kenn ku nekk la nga yor dong nga yóbbaale su ko defee kooku yi day joxe ci beneen bind muy fii ci àdduna ndekete ki fi nekk di waaj jëm ca bàmmeel ba la mu bëgg a jariñoo foofu na gaaw waaj ko fi yóbbaale ndax su demee kat ña muy fekk foofa ca bàmmeel ba wala kenn ku nekk ci sa bàmmeel la nga yor amoo jotul di ko abal kenn xam nga ne ndonga loo xam ne jox nañ ko laaj yi mu toog ci seesam di tontu yor benn big boo fàttee sa big ca kër ga mënoo ne ko abal ma big mu di la ko jox tuyaaba yi it noonu la demee ndekete bu ëllëgee wattandikul njàqare wattandikul njàqare ak tiitaange boroom xam-xam yi gëstu mbirum doomu aadama ci wàllu psychologie dañuy wax ne quarante pour cent ci nit ki at mi mi ngi nekk ci ak dalam xelam mu dal waaye même soo xamoon lépp ba kaaru ko te sa xel dalut mën ngaa bañ a dem fii mu ne boo jëloon wenn dénk woo xam ne ñaar fukki centimètre la boo ko lalee ci suuf di dox da ngay waaxu rek di dem amuloo benn problème waaye boo ko jëloon gàll benn bi fii gàll beneen bi ci étage bi ci des bëgg a jaar ci jaww ji nag di dox ñaari jéego rek boo ko seqee daanu te pourtant dénk wi dénk wi rek la ni mu yaatoo woon la waaye lan moo lay daaneel njàqare li nekk ci kon nit ki na dalal xelam balaa dugg ci biir examen ak lu mu jàng-jàng su fekkee tiitaange dikkal na ko rek daanu dikkal na ko wala yaasu billah booy tontu na nga teey def ndànk bul yàkkamti bul yàkkamti yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne at min allah teey teey ci yàlla la jóge wal ajalatu min alcheytaan yàkkamti ak rabax rabax nee na kooku ci seytaane la jóge kon wattandiku lu mel noonu wattandiku na nga teeylu te say laaj bu fekkee ni jot nga ci bala ngaa tàmbalee tontu jàng ko dañuy wax ne dix pour cent ci temps bi ñu la jox da nga koo war a def ci jàngalaaj yi ba dégg ko dix pour cent ci wax bu dee deux heures de temps lañu la jox muy cent ci ay minutes jëlal douze minutes yi nga def ko ci jàngalaaj yi ba dégg ko boo noppee ñu ne la jëlaatal dix pour cent yi pour jagleel ko jàngaat li nga bind bu baax a baax a baax ñu bari nag dañoo defe ne examen bi moom mooy nga gaaw a noppi rek ba joxe ba génn dem déedéet résultat bi ci kanam loola la ñuy jëkkante waaye jëkkante wuñ ku jëkk a génn léeg-léeg kenn génn yow mi nga xam ne yaa fa des boo wattuwul rek da yëg ne yow mi bootul da ngaa xamut loolu moo tax kee génn te génnoo waaye déedéet bul def loolu ci sa xel jàppal ci sa xel ne ñoo ñi gaaw a génn xëy na dañoo lot jéem jéem mu te leen ñu far joxe seen i kayit génn dem yow defal loolu ci sa xel nga góorgóorlu euh, jàll ba ca tegu su fekkee ne bind nga matière ba noppi yàlla dogal nga génn gis ne am nga ciy njuumte jëlal foofu kon bind def ko bind ci li la dese ci ay matière nga fexe ba xool lan moo ko waral sa njuumte yooyu ndax da ngaa préparé wut ni mu jaadoo pour nga mën a préparé bu ëllëgee ndax dangaa yàkkamti moo tax li la dal dal la bu ëllëgee nga bañ yàkkamti ndax da ngaa jàngut laaj yi bu baax a baax moo tax loolu dal la bu ëllëgee nga jàng laaj yi bu baax a baax loolu mooy tolloog ci jaamu yàlla yi tey ngay dox ba mu yàgg nga juum def ak mooy yàlla wala nga juum bàyyi ak jaamu yàlla te tey ko kon dellusiwaatal ci sa bopp nga wérifie daal di tuub fexe ba xool ba jaamu yàlla googu nga bàyyoon bu ëllëgee nga bañ koo bàyyi mooy yàlla gi nga defoon bu ëllëgee nga bañ koo def gannaaw bu loolu jàllee xamal ne wuruj ak bor li ñuy tuddee tricher ci biir examen lis ak feneen fu dul foofu sax lislaam da koo araamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu muslim daf ne man ghasha fa laysa minna ku wuruj ku def corruption ak ci anam gu mën a doon nee na kooku na dem yoonam te jàpp ne àndatul ak man aw yoon kon ji ma góorgóorlu ba wattandiku loolu boo gisee ku koy def nga waar ko yëgal ko ne ko lii responsabilité bu rëy la ndax loolu aw yoon la woo xam ne mën na laa jox ay diplôme bu ëllëgee ñu defee li nga jàng danga nga koo xam te fekk xamoo ko ñu joxale responsabilité te fekk kon ndeke lañ la jox mënoo ko bu ëllëgee njaaxum yu rëy mën na caa juddoo yàq gu rëy rëy mën na caa juddoo kon loolu boo ko gisee ci sa bopp wattandiku ko daw ko sa bopp waaye bul bàyyi keneen itam mu di ko def soo gisee koy def waar ko mu bàyyi ko su ko tee bàyyi jar na sax nga kalaame ko boole koog ñi nga xam ne ñooy responsable yi ndax loolu bokkul ci li ñu tudde rambaaj loolu digle lu baax la ak tere lu bon waaye bokkul ak rambaaj njaaxum yu bare bari dana di am ci jamono yoo xam ne examen jot na am na ñoo xam ne seenu ñàkk ragal yàlla àgg na ci di jaay ay laaj jaar ca suuf di ko jaay di ci jël xaalis kooku njaaxum gu réy la am ñoo xam ne sax jaral na leen ubbi benn sit boo xam ne ci internet lay nekk dugal ca laaj yépp yor site boobu nag di ko jaay ndànk ca suuf loolu lépp ay musiba la yoo xam ne jullit bi war na koo daw war na ko wattandiku te su gisee ku koy def war naa gaaw ca nu mu gën a gaawee yëgal ko ña nga xam ne suñ ko yëgee mën ca dara bu loolu jàllee na góor góorlu ba sori lépp loo xam ne daf lay yàqal sam jàng moo xam waxtaan la moo xam sax ak lekk gu ëpp la wala naan gu ëpp wala ay nelaw yu ëpp wala ay nelaw yu manqué sax lépp loo xam ne dana la yàqal wala yu ñuy déglu wala sax sport boo xam ne waxtoom dafa jot nit ñi di dajaloo di ko déglu muy sànq seen i temps yooyu lépp lu la ci yàqal am njàng rek na ko daw sa kem kàttan ñetti ñetti yii suñ àndee góor góorlu muy kër gi ak waa école bi ak ndongo li ci boppam kenn ku nekk def li ko war jàpp naa ne euh, li ñuy gis muy ñëw ci ab école li ëpp ci ñi fa doon jàngee li ñu leen doon jàngal xamuñu ko maanaam examen wanewut ne xam nañ ko jàpp naa ne loolu dana mën a dakk wala dana mën a wàññiku ak wàññiku goo xam ne danañ gis ne su ndaw ñi dellusiwaat nañ kon ci jàng bu baax a baax dellusiwaat nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax kon responsabilité bi du responsabilité kenn nit wala ñaari nit du benn bërëb wala ñaari bërëb waaye kër gi ci la Ah, waa école bi ci lañ ndongali ci boppam ci la société bi ci boppam it am nañ aw laaj woo xam ne war nañ caa góorgóorlu bu baax a baax a baax bay ko allahuma arham ummata muhammad allahuma ahfaz ummata muhammad allahuma hayyi li hadihi al ummati amra rushdin yuizu fihi ahlu taatik wa yadillu ahlu maasiyatik allahuma hayyi li hadihi al ummati min shababiha sullata xayrin tudriku daxaamata almasuliya